asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu leen di dalal ci seen chaine d'information leader Sénégal 7 TV di am mbégte di janoog yéen ci entretien spécial bi ñuy amal tey war ci ànd ak l'honorable député Sanou Dione Sanou Dione di député de la diaspora élu sous la bannière de la plateforme taxaw Euh, Sénégal nekk fii ci pencum ndaw réew mi ñu fas yéene nag waxtaan waxtaan ak moom ci li gën a fës ci actualité nationale na nag actualité euh, politique bi mais laata ñuy dugg ci waxtaan bi honorable député dañ lay bàyyi nga nuyoog internet Sénégal seeti ñu lay seetaan actuellement. merci monsieur Thior maa ngi lay nuyu ak sa caméraman. Mm-hmm. di nuyu seen euh, téléspectateurs yëpp. Mm-hmm. di leen encourager je dis toujours à voir ces jeunes. Mm-hmm. tu yi nga xam ne actuellement mun naa ne tey. wax dëgg yàlla ils mm-hmm. vraiment la presse sénégalaise mm-hmm. on ne peut que vous encourager mm-hmm. pour que demain ngeen toll ni les grandes chaînes comme tf comme RFI mel noonu la ñaan vous avez la compétence te xam nga avec les nouvelles technologies boo xoolee léegi cette jeunesse là ils sont plus collés à vous. Mm-hmm. que qu'aux médias traditionnels. Ah je m'en excuse auprès d'eux. Mm-hmm. mais en tout cas dina ñaan yàlla. Mm-hmm. di ñaan yàlla aussi liñ fiy wax. mu jëriñ Sénégal di nuyu la diaspora. comme vous l'avez dit di nuyu. di encourager tous les xalifistes. et surtout notre candidat Khalifa. donc euh, ko ñaanal yàlla yàlla may ko ci élection yi jëm. alors très bien euh, honorable Euh, li gën a fës actuellement mooy li xew ci euh, conseil constitutionnel gannaaw bi nga xamante ne euh, ne woon nañ tey jii ni la ñu war a def li nga xamante ne moom mooy démarrer li nga xamante moom mooy tirage au sort bi jëm ci mbirum contrôle wala boog sax ordre de passage pour mun a vérifier li nga xamante ne moom mooy parrainage bi def nañ ko ba noppi suba la ñu war a commencer li nga xamante ne moom mooy contrôle yi ordre de passage bi dafa mel ni léegi leer na sa candidat tudd ko léegi ñu classé ko. soixante-quatrième xalifa Ababacar Sall euh, am na ñu bëri ñu ne woon xalifa du dem amul parrainage ak ki nu mel tey jii nii dem na ba déposer dossier ñu classé ko soixante-quatrième alors sa état d'esprit lan la actuellement. waaw suma état d'esprit euh, bi ma sante suñu borom ba xalifa déposer yàlla may ñëw ñu déposer am possibilité mënoon déposer parrainage électeur. Mm-hmm. ak parrainage euh, aussi élu. Hmm. maanaam parlementaire. Hmm. ñu toog xalifa def choix. o niveau de la plateforme nag on en a vraiment discuté ah. sur le choix. sur le choix ça a été un débat démocratique. donc suma état d'esprit mooy euh, sant suñu borom ak ak un de fer. Hmm. am confiance que ces élections on va les gagner. mais sant suñu borom bu xoolee li am soixante quatrième on rend grâce parce que tey doon na jafe. Mhm. parce que xam nañ ne le nombre de candidats yi déposé yëpp. Mhm. ak fichier bi ni mu toll. bu ñu la yóbboo ci yenn par yenn position yi. ci parrainage u électeur yàlla da lay musal ci affaire doublon. Mhm. ñëpp xam nañ ne kii njëkk a déposé. il a plus de chance. comme Boubacar Camara comme Boubacar Camara. mais parce que boo jëlee bu bu doon ñëpp doon am le nombre dina ëpp fichier bi. Hmm. cela veut dire que dafa xaw a doy waar. Hmm. mais bu la yàlla mayee nag si sa taxawaay yàlla may la nga am ay élus. Hmm. nga dem jël loolu c'est plus sécurisant. que doublon yi. ban parrainage ngeen choisir justement. parlementaire yàlla may nañu quatorze sur les quatorze on a pris treize. pourtant il y avait beaucoup de de de de crainte autour de ça avec l'affaire Barthélémy Diaz ñu bëri jàpp ne Barth boo amee problème. xëy na da ngeen di daw parrainage des parlementaires dem ci yeneen parrainage yu comme citoyen wala parrainage des exécutifs territoriaux. waaw c'est bi ko Barth waxee bon <laughs> xawoon na indi ji jaaxa. Mhm. mais xëy na Barth aussi bi mu koy wax xëy na sora parce que dañoo benn député bu tudd Aimé. Mhm. ñu bii ñëw on était venu avec treize députés. Mhm. mais dafa benn député euh, yàlla na ko yàlla yërëm te xëy na ko àddina parlementaire. bu nekkoon PDS génn àddina ki ko remplacé. elle de taxaw Sénégal. muy muy Aimé Fall donc ñu 14. Mm-hmm. xam naa ne bon baat xëy na loolu la jëlul woon en

période bi mu ko defee moom doy na waar. je me dis est ce que même est ce que même pouvoir bi xamoon na ne nous sommes quatorze xam nañ ko mais xëy na aussi comme que ñoom si erreur lañ mhm. nañu bañ a sóoraale quatorze yi. sóoraale mhm. yàlla rek moo xam lu tax ñu def ko. Batt aussi bi mu koy wax xëy na bon il l'a il l'a dit en connaissance mhm. laa jàpp peut-être. donc loolu moo amoon dinañ indi gàllankoor. dinañ indi jafe-jafe sachant que bu bëggee dara moom kenn mënu ci dara. tey je je m'excuse de dire ku xam Bougane Gueye Dany xam ne Bougane am na am na am na nombre de parrain. yu wóor moom am na ko. moom day moom ne nii quatre vingt quatre. waaw position bi mu nekk tey lañ ko placé. ak ni mu am problème ak pouvoir yooyu su ko bëggee galgal da koy galgal. ci hmm. affaire doublon mu ne ñi ñi mu ñi ko jiitu am nañu le nombre. yooyu commencé mais mais à préciser aussi que honorable le tirage a été fait de manière. transparente aussi non non ah, oui de manière démocratique ah. mais problème de chance la rek. Hmm. tirage moom kenn amoon lu mu ciy wax donc loolu moo tax. problème mu Barth bi ni ñu ko waxee mais mais li may relever rek mooy li ñu doon wax naa ñaari député yoo xam ne yooyu moom. Hmm. il faut le carte mais lan lan moo motiver justement choix bi bi ngeen amee paletu choix am parrainage citoyen parrainage des parlementaires des députés exécutifs territoriaux yooyu lan moo guidé seen choix ba ngeen yem ci pencum ndaw réew mi. parce que taxaw c'est une plateforme taxaw c'est pas Khalifa qui décide y a la LD y a ay mouvement euh, ñu génn parti socialiste ñu nekk AFP ñu nekk LD plateforme la boo xam ne pour prendre une décision su ma la waxoon coor mm. difficulté bi mu am. da ngay toog réunion de vingt heures jusqu'à trois heures du matin on débat. Mm-hmm. te Khalifa c'est un mais aussi bu ñu waxtaanee dafa am comité boo xam ne nag dafay réunir xool tous les pièges qui tournent autour mais on a dit pour sécuriser xam nga boo. Mm-hmm. nit doo doo dugal sa bopp ci jafe-jafe. Hmm. aussi pour donner la chance aux autres aussi. cest à jafe-jafe bi aussi mel na ni dem ci terrain bi ragal également mbëkkanteeg waa Kër Sonko. bokk na xëy na ci li war a motiver seen choix. ci ni ko ñenn ñi mën a xalaatee aussi. en vérité nag loolu sax lu jaral leneen la. Hmm. au début amoon na ay jafe-jafe ñu nag euh, le Pastef. Hmm. mais wax dëgg yàlla jot nañ ci régler lu bëri bëri différent bi ci amoon yëpp. est-ce du loolu moo tax ngeen daw terrain bi honorable non non mais Khalifa Khalifa est en train de faire le Sénégal amul benn que. ku ne parrainage citoyen motal nañu. jëmee hmm. témoin ça je peux te jurer ko il a fallu maintenant ñu hmm. pour deux hmm. benn bi lii lañ ci doon moytu nga nekk quatre vingt treizième wala nga nekk soixante et quelque on ne sait pas avec le doublon wóorul. di créer waat encore ay stress ci ci ci militants yi. wóorul. benn bi ñu ne aussi y' a beaucoup de candidats qui sont pleins. Hmm. oui les grands partis jël nañu parrainage yi suba kuñ ci recalé nga ne nga mer ne xëy na taxawu la wala xëy na wallu la wala xëy na suba mu nekkaat ay vote sanction yoo xam ne yàlla xam ne du yow. Hmm. on a dit on leur donne leur chance ñun kon am nañu am nañu treize parlementaires yoo xam ne yàlla may nañu ko on prend nos treize parlementaires pour d' abord sécuriser et may ñeneen ñi aussi leur chance. Hmm. Comme ça, s'il y a un problème de doublon, on ne dira jamais c'est les gens de Tahaou ou c'est les gens de X ou Y. Mmh. Voilà les deux raisons. Mais avec, ce choix-là, est-ce que Khalad Ngane, vous contrôle, vous conseil, la commission, autant pour moi, chargée du contrôle, vous devez liguer, est-ce que Khalad Ngane, Tahaou Sénégal, il n'y a le parrainage Mais il C'est clair. Ah, ça y est, c'est clair. On a 13 députés qui ont avec leur carte d'identité, mmh. de, de parlementaire, et signé l'engagement. sécurisé. Mhm. jeex na sauf sauf que am na ñu ne ragal na ragal nañ également ngeen am problème ci wàllum kitis bi muy Khalifa Sall mooy euh, ki nga xamante ne moom mooy euh, Karim Wade gannaaw bi ñu leen condamné kii ci euh, mbirum kër yi que ca des ca kitis fiscal bi ngeen am ci problème comme ni ko yenn experts yi ak observateurs yi di waxee. mais heureusement monsieur Thior yaa ko wax kitis fiscal. Hmm. am na nag benn leader bu jóg ci télévision bi wax ko. mooy muy Mame Mbaye Niang. Hmm. Mame Mbaye Niang même des problèmes avec Amadou Ba. xam nga ku am problème ak sa parti. bëgg a jël histoire boobu xëppuñu ko créer une confusion ci biir heureusement que li ñu gëm ba léegi mooy bu ko Mame Mbaye Niang waxee ba déggoo kenn pouvoir wax ko. Hmm. xam nga sur les neuf pièces. quitus hmm. fiscal demande manuscrite la pour wane ne jeune ne dois rien au fisc. c'est des problèmes d'impôt. ay affaire impôt la. donc par rapport au fisc nous on doit rien comme euh, Khalifa ne doit rien au fisc. xëy na ñoom côté condamnation bi. non condamnation bi euh, loolu la amende la amende la. le code épargne ne parle pas d'amende. il mhm. parle d'être en règle avec la comme un chef d'entreprise si Khalifa avait une entreprise. Mhm. wala xëy Khalifa n'avait pas payé ses impôts wala yu mel noonu on aurait compris. Mhm. mais par rapport aux impôts Khalifa amul benn problème la fiscalité bii passé c'était la même chose donc problème mu condamnation la ñu waxoon mais bii. Mhm. avec les modifications de l'article vingt sept cinquante neuf et autres cinquante sept et autres le problème a été donc Mame Mbaye li mu wax wax dëgg yàlla. Mhm. jotewul ak ñun dara. Mhm. parce que biñ demee ci dialogue bi tout mu ngi wax naan ay problème mu dialogue yooyu moom yooyu kenn du ko dialogue ni muy traité mooy si c'était un problème. d'amende on aurait discuté. mais problème mu fisc. Mhm. ça ne nous concerne pas du tout. loolu moo tax loo ciy waxtaanee ci loo xam ne yow ça ne pas. Mhm. parce que les candidats yi fi nekk gawuma ci ku am problème mu fiscalité. donc ce problème là amuñu mhm. problème ñun wóor nañu ne. day dem élection te incha on va. dans le droit chemin alors, très bien euh, kenn ci yéen également ci kuje gi laa bëgg wax mooy Ousmane Sonko dégg nga coow li ko topp jamono jii nii euh, ci mbirum euh, radiation bi jamono ji mu mel ni affaire yi jeexagul parce que agent judiciaire de l'État dugal na li nga xamante ne moom mooy le pourvoi en cassation yëf yi demaat dellu ca cour suprême justement ngir ñu mën leeral radiation boobu gannaaw bi également gis nañ ne dem na conseil constitutionnel comme Khalifa Ababacar Sall déposé dossier am mu àndal tamit jàpp ne dossier bi mat na ba jamono ji ñu ngi ko classé à la quatrième position buñ sukkandikoo yi ni nga ko expliqué muy euh, classement bu favorable par rapport à la question des doublons et tout ça nan nga jàngatee mbirum Ousmane Sonko moom. bon man mbirum Ousmane Sonko dama koy masawu dama koy masawu pour deux raisons. Mm-hmm. li mu subir depuis quelques années. man je ne peux aller à l'encontre de Khalifa Sall et à l'encontre de la du directoire de Taxawu Sénégal. Taxawu mm. Sénégal combat l'injustice Mm-hmm. Khalifa Sall a dit plus jamais un troisième. Mm-hmm. li li Karim Wade subir moom mu subir ko ñaanatul yàlla keneen sénégalais di ko subir particulièrement Ousmane Sonko. Mm-hmm. Bougane Gueye kenn Ousmane Sonko amul benn text bu koy interdire mu bokk ci élection. amul benn condamnation définitive bu koy teree bokk ci élection. daa war a bokk maintenant. li nga xam ne maintenant c'est la volonté politique. je hmm. dis volonté politique. du hmm. pouvoir. Hmm. loolu beneen affaire la boo xam ne tous les démocrates de ce pays. ren dañ ci wax. le conseil ils ont accepté sa candidature. ils ont accepté son dépôt. maintenant dans la vérification des pièces. li nga xam de moom na euh, DG bañ. jox ko ak li nga xam ne moom na. Euh, caisse de dépôt bañ jox ko attestation bi. Mhm. loolu le conseil constitutionnel va statuer parce que moom demandé na ko. Mhm. dañ ko bañ a jox. Mhm. foofu c'est le conseil qui va qui va qui va voir la légalité de ce refus. loolu bu conseil constitutionnel waxee ne dañ ko waroon jox. parrainage am dañ ko waroon a jox attestation de dépôt foofu amatul problème maintenant li ma gëm. li ma gëm. ouais mooy Ousmane Sonko am na droit bokk ci élection yi liñ koy teg c'est de décisions politiques. Mm-hmm. le pouvoir ni mu ko defoon Karim Wade def ko Khalifa Sall la bëgg a def Ousmane Sonko. Mm-hmm. Ousmane Sonko dafa war a bokk. dafa war a bokk mais fan la seen relation toll justement su ma nee seen relation mooy taxaw Sénégal ak ex-Pastef tey jii yaa ngi koy wax mais paraît-il que entre Ousmane Sonko ak Khalifa Ababacar Sall actuellement les liens sont carrément coupés. am na xam nga vous êtes des journalistes. Hmm. peut-être vous avez les informations mais en politique fii la ñu ko fekk. y a hmm. toujours des problèmes mu ñuy arrangé dire que ne amul problème ndax sama bopp la. Hmm. parce que gis nga ko ci ville de Dakar gis nga ko ci conférence des leaders gis nga ko ci assemblée nationale. mais yàlla def na y toujours eu des ponts. un euh, euh, Khalifa Sall. dama gëm je connais ce gars je connais ce leader là. Khalifa ko Khalifa Sall ne coupe jamais les ponts mu ngi ciy dox. mu ngi ciy wax keneen ku dul Khalifa Sall ñoom Habib Sy ñëpp Khalifa Sall Sonko amul amul problème. am na hmm. problème politique. dégg nañ ko sax ci beneen euh, dernière sortie boo xam ne def na ko gannaaw ci tournée bi muy def hmm. euh, di mastaw Ousmane Sonko hmm. waaye tamit euh, di ko gëm la ne également fi mu ko jàpp ci wàllu combat bi foofu la dafa war bañ xeex justement. non ñun Khalifa Sall nous a dit lépp luy injustice il faut le combattre Ousmane Sonko suñu nawle la. suñu camarade la il subit une injustice il faut le soutenir que ça soit à l'assemblée muy feneen fenn rek la dul egg cest dire tout ce qui est violence wala leneen leneen bon du suñu cër mhm. mais à l'assemblée nationale luñ ci war a wax dañ ci wax mhm. dans les médias luñ ci war a wax dañ ko wax mhm. Moussa Taye a fait une dernière sortie vous avez entendu Moussa Taye ouais. Ousmane nañ ko bàyyi mu bokk des élections inclusives man je pense à Ousmane Sonko je pense à Bougane. à Bougane Bougane sax nañ ñëw ci kaam te sànq yaa ngi wax ne neuf pièces la pour mun a participer. a la présidentielle jamono jii nii neuf pièces yooyu dafa mel ni Ousmane Sonko buñ xoolee techniquement wu matériel neuf pièces yi dina xaw am lu ko gàllankoor gannaaw bi DG bañee euh, daaf également euh, comme nañ ko waxee bañ mais Ousmane Sonko bu ñu retiré. Euh, ci candidature yooyu noonu les quatre vingt treize yi nga xamante ne lim nañ ko ban impact la mën am ci jeextalu élection bi. xam nga man je suis un sportif. Mhm. je croyant. coox. Mhm. leneen laa gëm suma àddina su ma tëddee suma ma ba bàmmeel. Mhm. politique jaraluma may def animosité jaraluma may def yenn yi Ousmane Sonko actuellement il lui manque deux pièces. yoo xam ne dañ ko bañ a jox. tout le monde le sait ah. mooy les parrainages. j'ai bañ a. déposé na caution. ñu war ko jox attestation mu joxuñu ko. loolu c'est un refus. Mm-hmm. mais il y a une jurisprudence di fi amoon ak euh, euh, le candidat bi nga xam de mooy euh, kii encore Sankhare. Mm-hmm. parce que une administration bu la bu mën a bu bañ a jox un document. Mm-hmm. c'est un refus. maintenant le conseil va voir. le pourquoi comme de ce refus. tey conseil constitutionnel mënoon na bañ a jël candidature Ousmane Sonko. pour wax ne tu es condamné ou te. le fait que le conseil accepte cela. Mhm. n'a rien à voir avec le fait des dossiers. Mhm. li ñu waroon mooy jox leen ko ay dossiers jox leen ko parrainage am. jox leen ko attestation am. il appartiendra na appartiendra na au conseil constitutionnel de vérifier. Mhm. la légalité de ces neuf pièces. est-ce que Ousmane Sonko neuf pièces yi nga indi yëpp. Mm-hmm. d'accord indi nga caution. Mm-hmm. indi nga parrainage yëpp mën na. Mm-hmm. mais tey y a telle condamnation. mais Ousmane Sonko recalé justement loolu mooy question bi honorable ban impact la mën a am ci élection bi. dina dina xajabal élection yi même soo gagné. Mm. tu vas gagner démocratiquement mais il y un goût dans le d'inachevé parce que Ousmane Sonko est une réalité dans ce pays dans une grande démocratie. da ngay bàyyi que le meilleur participe. Hmm. et lui il fait partie des meilleurs. Hmm. les élections vont se tourner autour de Khalifa Sall de Karim Wade de Sonko de Amadou Ba. Hmm. de Bougane. du PUR. voilà les six. sur lesquels c'est là. où le vainqueur va sortir. foofu bi nekk Amadou Ba ko en tant que candidat du pouvoir moom tamit eh, gis nga ko ci classement bi soixante-huitième mais également c'est le seul candidat à avoir choisi le parrainage des exécutifs territoriaux, les, les maires, les, maires les présidents de conseils départementaux. Oui. Surprise, ce côté ou bien xaaroon xaaroon nga ñu opté choix ñu ñu def choix bi ni xaaroon naa parce que hmm. ku xam bennoo xam ne bennoo tas na. ah bon ah ndax ci choix boobu rek. ci boobu parce que bennoo <laughs> ñoom xam nañu ne Amadou Ba ne fait pas l'unanimité dans bennoo. pour yow moo tax mu bàyyi parrainage citoyen dem bële ak parrainage des députés. parce que position bi ñu nekk tey soixante quatrième am na mënoon na fa nekk mënoon nekk quatre vingt treizième. Hmm. kon moom tamit du am parrainage. Amadou Ba ah du am. mais ils ont quand même beaucoup de maires hein, et de présidents de conseils départementaux. loolu moo tax ñu jël loolu nag pour être pour ils ont joué la sécurité ñoom ñëpp. Hmm. ñi am parrainage des élus yëpp ils ont joué la sécurité. mais pourtant ñoom newoon nañ am nañ plus de 3 millions de parrain amuñu dara plus sa yoon nekkatu ci sécurité loolu moom c'est plus que la sécurisation quand même ouais ku xool ku xool le parrainage xool l'animation du parrainage xam ne boo xoolee gis ne fii les Sénégalais ñoom pa ñoom ay bourses familiales nañuy jël ak yeneen leen jël nañuy jël hmm. wala jël yeneen xamoo fu ñu jëlee seen parrainage moo indi 3 millions de parrainage amuñu 3 pas Amadou Ba ne pourra même pas avoir un million de de de, de votants mënu am c'est pas possible. ah bon son problème est-ce que est-ce qu'il sortira est-ce qu'il pourra aller au second tour voilà l'enjeu. Mmh. est favori c'est vrai que le parti au pouvoir on le considère toujours comme favori si c'est le candidat. Mmh. si c'est le président sortant. mais fii ce n'est plus le président sortant. Mmh. c'est Amadou Ba qui ne fait pas l'unanimité qui ne mobilise pas Benno qui y donc xam nga il a des chances euh, que réduites. Hmm. donc Amadou Ba ils sont en train de faire un travail euh, psychologique. Hmm. pour góobloo nii da ngay gagné. mais deuxième tour Amadou Ba <laughs> ça pose énormément problème. xalaatoo mu dem deuxième tour. non pour man bu ñu demee élection rek démocratique. Hmm. Amadou Ba n'ira pas au deuxième tour. ah bon ah oui les dernières élections législatives. wane na ñii ils sont minoritaires. s'ils n'avaient pas brouillé. les urnes au niveau du nord. ce qui s'est passé à Louga ce qui s'est passé à Mbour ce qui s'est passé dans beaucoup de départements mhm. xam ñu ne ils sont minoritaires mhm. maintenant avec toutes les défections qu'ils ont xam nañu ne xanaa ni ñoom Mame Mbaye Niang di waxi moo ñoom euh, ñoom euh, ñoom Mame Mbaye ñoom Boun Abdallah dóor ñoom Abdou Mbow yi sax mais n'empêche am na appareil parce que gis nañ le président de la république ñoom Farba Ngom ak ñeneen ak ñeneen ñi des ci appareil bi mais gis nga ne seen xel moom sa buy wax day wax ne c'est le candidat de la continuité honorable effectivement c'est ça qui l'exemple de ma commune mm-hmm. euh, euh, Djibi il a gagné plus de xaw ma combien de de voix mm-hmm. élection locale mm-hmm. élection législative il va soutenir Amadou Ba Amadou Macky Sall def coalition avec avec avec Benno ils ont perdu plus de 7000 xaw ma euh, quand tu t'approches de Macky Sall tu perds. ah bon ah oui ku ci jege Macky Sall daal donc ñoo xamuñu ne c'est Macky Sall qui les fait perdre mais du ñoom. Mhm. Amadou Ba le fait d'être à Macky Sall sax moo tax il va aller encore ça va aller plus grave. ah bon ah oui naa la ñu dese ci temps bariwul dañu war a dellu ci hémicycle bi honorable mais justement on aborde une toute dernière question mooy mbirum mbirum maître euh, Moussa Diop moom tamit nekk candidat. bon Moussa déclaré actuellement en détention Moussa vraiment ñu ngi koy masawu ñu ngi koy masawu erreur am na erreur amul bàyyi ba élection passée. amoo toutes les informations honorables mais dégg nga quand même mu ne ay permis d' exploration et ah d' exploitation de jamaa la. ñu bëri sax bi ñu déggee affaire bi jamaa bi moo leen gën a jaaxal. est ce que amoo am nga surprise boobu comme ni ko ñenn ñi amee. loolu xam na ne jamaa au Sénégal et Sénégal am na trace de jamaa que ñu ko ñu ngi ciy dox mais est ce que am na au ou pas je sais que vers Saraya et autres am na. Hmm. am na vers Saraya. le jamaa le y a des ñu ngi koy ñu ngi koy ñu xool. Mhm. man ku ci mel ni euh, Abdou euh, kii Diallo. tekki Mamadou Lamine Diallo mhm. nga xam c'est un expert laaj naa ko. Mhm. mais nee na ma vers le nord wóoru ko. mais xam daal vers le Saraya vers le Sénégal oriental moom am na ay traces ñu ngi xool ba xam comment l'exploiter. mais je ne sais nag que fi mu wax. mais nag Moussa Diop lu mu wax. <laughs> nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi xel. ah bon oui Moussa Diop bu waxee. dañ hmm. ko bàyyi xel xaw ma li nga xalaat ne lu mu wax ci président de la république. wax ko ci Aly Ngouille Ndiaye wax ko ci Jean Claude Mira lu mën a nekk la. non je sais que ka un avocat. c'est un xam naa ko xarañ. en tout gis nañ ko muy brandir ay preuves. non suma xarit la. mais comme que man jotuma ko gis ba gis document yi. Hmm. xam naa ci loolu du waxantu. c'est hmm. quelqu'un de très très très très outillé informé est-ce qu'il a fauté il n'a pas fauté loolu rek moom ma si dese mais xam naa daal. lu mu wax dama ciy bàyyi xel. Mm-hmm. waaw malheureusement nag à l'Assemblée on n'a pas le d'avoir des commissions d'enquête tey lii mënoon nañu def commission d'enquête. Mm-hmm. dugub ah gis nañ wax ci affaire commission. d'enquête ak yu mel mais mm-hmm. mënoon nañu bàyyi assemblée dem au fond mais xam mais maa ngi ñaan yàlla daal euh, président bàyyi ko. mu dem élection ba élection yi jeexee nag. ñu xool. en tout cas de Aliou Ngouille Ndiaye loolu la waxoon nee na bu dépendre ci moom moom bi nga xamante ne accusé nañ ko justement. Euh, ñu bàyyi mbir mi ba élection yi jeex ñu ñëwaat ci. Aliou Ngouille Ndiaye c'est un bien c'est vrai que bon tuumaal nañ ko mais bon le reste après dina leer quoi xam nga Sénégal mi xam ne. Hmm. c'est l'histoire dans les prochains mois. après élection 2024 moom. Hmm. après février. Hmm. à Sénégal lu bëri dina leer. suñu borom. très bien li ñu amoon ci temps jeex na honorable xam naa gàtt na na mi dañu war a dellu ci. émission bi ñu bàyyi la surtout nag tey am na ci loo xam ne hmm. concernant les forces armées am na lu ñu proposé en commission. moo tax ma bëgg a interpeller ministre bi léegi bu ñu duggee en commission léegi ce sera le débat. très bien. merci ñu ngi lay jaajëfal lu baax. merci.